يا غير ليت أدى asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk jullit yi yéen mbokk taalibe yi seetaan seen télévision Al Mouridiyyah TV ñoo leen di ziar bu wér di leen yëgal ni tey fukki fan ak juróom ci weeru Ramadan ci atum junni ak ñeent téeméer ak fanweer ak juróom-benn dëppoo ak ñetti fan ci juróom-ñaareelu weeru nasaraan ci atum ñaari junni ak fukk ak juróom di le 3 juillet 2015. ni ngi fii ci seen jataayu ndogu Touba tey nag ñu def ko fii ci Njaareem maanaam muy ndogu Touba ak li ko wër kon euh, tey ñu ci dëkk bii di Bokk atul mu Mubaarakati dëkk bi nga xam ne fii la Serigne amal fukki at ak juróom. di 1912 ba 1927 wàccee fi liggéey mu dëkk bu màgg boo xam ne dëkk murit la boo xam ne bi cosaan yu bari da ko am moo waral seen rajo télévision euh, Al Mouridiyyah TV ànd ak yéen tey ci li nga xam ne bii mooy liggéey ñu def ci biir weeru koor muy seen euh, ndogu Touba kon ci kanam tuuti ñu waral leen jotaay bi nga xam ne mooy àggale liggéey bi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yen yéen mbokku yi setan sen radio at Mourida TV ni ngi fii euh tay fukki fan ak juróom ci Ramadan depo ci atum junni ak ñeent fan ak juróom ben ni ngi tok ak Serigne Mountakha gay moy kenn ci ñinga xamni ñoy ni fulko fi ci Njaareem kon ginaaw ba nuyo ci Mountakha ba pare dina am laaj buñ koy laaj ndax da xawa xat laaj bis jitu moy rek mu faram faccel ñu nga xam moy ci slay fulko bi. fi mu tàmbalee ak ban at la tàmbalee ba si fii ak ñi nga xam ñoo ko doon jàng ak nañ ko daan jàngee ba mu toll fii bisimilah. waaw kay euh, jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. noo leen di delloo ab nuyoo ñu leen sant bu baax ci liggéey bi te ñaan itam yàlla barkeel leen te yeggal leen seen liggéey euh, noonu la sëriñ bi wax ni <coughs> dafa àndoon ak tawfiq ci liggéeyam. wa raafaqtu fi xidmati tawfiiqa xaaliqinaa jooju yéen yàlla ngeen ànd ak tawfiiqu sëriñ ci seen liggéey bi waaw fu ngeen ci bëgg rek ngeen yegg ci ah, tool ki moom <coughs> cent quarante six la ko sëriñ Basiru tàmbali fii mboog moog suñu wax lu jëp dagana moo suñu def dagana moo ko doon jàng mu toogee mu koy jàng booba melul nii yàgg na ña ko fekkee <laughs> léeg-léeg sax du fukki nit léeg-léeg ay juróomi nit waaye rek mu ne ci noona moo nag di di wéy jublu gi nag jublu gi nag moom mooy xam na ni daan wax ni xasaayid yi mooy liggéey bi nga xam ni amul benn jëmm joo xam ne fekk gis Sëriñ Tuubaa ah daana wax ni da nga dégg naan diw tabaxal na ab Sëriñ Tuubaa jàkk diw tabaxal na ko jumaa diw bënal na ko teen waaye xasida yi nañ amul benn araf benn rek boo xam ne benn mbindeef motal na ko ci xasaayid mi moom moo kon mooy liggéey boo xam ne kenn fekku ci ah, te moo dox digg ma boromam dox digg ma ngën ji mbindéef moom it xam gu ma xam tolluwaay boobu ah moo tax moom moom it ko doon def di ci liggéey la rek e, jubloom it ah, naaw liggéeyal sëriñ bi ak ngërëmam mooy bëggoon ñëpp mu yaatu ba ñëpp àddina yëpp di ko dégg loolu daan na ko ñaan waaye bëgg ko aji baax loolu moo ñëw mooy mooy mooy yéen ñi tey rek ah, ndax itam tey mën naa wax àddina yëpp koy dégg e, loolu mooy mooy mooy télévision yeeg rajo yeeg Euh, média yi xeeti média yi am euh, loolu suñu Bachir ñaanam la woon bëggoon na loolu mu yaatu ndax daan na wax ni dëgg gi rek faju ko aju la fekk gi nag moom ngeen mbir la ngeen tawfeex la <laughs> kon loolu ngeen xam ne yéen ñii itam ah, kenn jiitu leen ci liggéey bi yaatal gi ak jottali gi benn bi liggéey jiitu ko waaw euh, li ci des mooy bi mu ko defee noonu nag di ko di ko di ko def moom si mu Dagana ah loolu dox na ab ba suñ mo la ngeen màgga màggee nag ba gi mayetu ko mu mën ko daan dem na sax bay takk ñaari weer waaye rek mu moom waaye gannaaw gi mu ngi si am naa doom joo xam ne mën na ko muy tafsir suñ tafsir Diop waaw tafsir tam yàlla dogal na ñaari at la ko jàng eh, daal di nelaw am nañ at moo xam ne sax am naara ñu jàng ko eh, muy doxee noonu daal eh, ba ba ba suñ ba suñ suñ Basiru jógee ci ci gàttal 1966 waaw ah, liggéey bi wéy noonu nag ñu wéyal loolu ba suñ Maxtaar Diop moom sëñ Mouhamadou mooy itam jàng na ko boobu benn téere la boobu ñaa naa téere yàggul boobu téere rek mu amoon gannaaw gi nag sëñ Tuubaa euh, at ma xam naa bu dul soixante-quinze jëm noonu daal la ko joxoon sëñ Moustapha euh, ni ko nañu ko boole si njàng mi ni ko njàmbaas ko ci si ñaanal moo tax mu nekk ñaari téere euh, yàlla dogal itam ci tënk daal ci man mii daal téere téere bu njëkk téere bii ñu jëkk jàng ni nga ko waxee ñi ci jaar bari nañu xamu ñëpp sax waaye xam naa daa ku ñuy wax euh, Abdou Guèye dëkkoon Ngeeraan mm, jàngoon jàng na ci ku ñuy wax euh, Moussa Thia euh, Thioune jàng ci ku ñuy wax Abdou Diop ci ku ñuy wax Moustapha Sène jàng na ci ba ci Alaaji Gajaga ba ci tey ñaar ñu ko ay mooy sëñ Gajaga ak Abdoulaye Diakhoum waaw ñooñu ñëpp daal te daal ñu ci jàpp boobu nañu waaw waaye bii gannaaw bi suñu Bassirou noonu ñu ak suñu tafsir Diop moomu suñu Mokhtar Diop moom mu jógee nag man laa ci laa ci jot 1978 waaw 1978 itam mu ñëwee tawfeex sëñ bi rek la ndax boobu itam suñu Mountakha bi ma ñëwee rek daf ne ma am na mimët mu suñu Bassirou yóbbaale woon te mooy fa saxtu ak maxaajul xuruf mooy itam mu sonn ci man nag lool moom suñu Mountakha mi daan na toujours man ci mu néeg di ma sax di ma daajal booba xam moom ndax boobu gànnaar laa nekkoon ba ñëw alxuraan laa xam waaye daal bëgg waa ji baax daal xanaa ba lu mu ci bëggoon daal ci gàttal <laughs> yàlla defal na ko ci loolu eh, loolu rek mooy mooy indi jotaay bi tey loolu daal ci ci gàttal noonu eh, noonu noonu la. <laughs> kon li nga aju ci bërëb bi ñu ko jàngee fii maanaam kër gu mag gi dañoo gis ne fii lañ koo jàngee te mos fee toxu loolu tam mën nga defal tuuti leeral. waaw loolu de xam naa dama ndax gannaaw borom moom fi la ko woon eh, booba sax du woon fii ci bërëb yi ñu toog ndax biir kër gi la woon am néeg la rek. néegu ñax la woon ba mujj nekk néegu seng ba mujj ñu def ko mbaar mbaar bi sax xëy na yàggul noonu ñu dindi ko nag def ko nii noonu nag mooy liggéey suñ Tuubaa ndax liggéey bi da ngeen ko xamee suñ moom nu jamono dox rek mbiram di gën di yokku di gën di màgg di gën di rafet euh, di gën di baax di gën di di ànd ak jamono <laughs> loolu rek mooy di euh, euh, moom fii la ko si woon ci kër gi moom suñ suñ Basiiru eh, ndax fii la nekkoon ak sëñ bi xas it na ngeen ko xamee xam ngeen lu ci bëri ci pàkk bi ñu ko suñ bi defee bàyyi loolu ko mën ko lim xam naa jubli gi it loolu rek la pàkk bi daal nga xam ne am na fukki at ak juróom nga xam ne loolu fekk na ko fi ku ne fekk na ko fi muy sëñ bi wax fi lu bëri ci pàkk bi ba wax ne sax pepp pepp suuf bu ne taxawaayu kamil la fi taxawee ah loolu it xam naa rek ak dundal dëkk bi it nag ndax ndax li ngeen ko gisee xam ngeen ni koor gi ful ko sax léegi ñu koy def fu ne waaye ba tey xam ngeen ni mu leen jaarim mel ko mel ko fenn loolu nag xam naa jublu suñu Bachir ak bëggam googu rek <laughs> ak bëgg dëkk bi bañ a bañ a bañ dund daal bëgg dund dëkk bi gën koo yaatal eh, moo tax xam naa ñu ñu ko yëf ci borom xam naa laaj mujj bi mooy rek xam ni gen di séddalee njàng mi dañoo gis ne dañ koy xaaj ay xaaj ndax dañ ko ab àpp ci ñaar fan a juróom-ñett wala dañ ko àpp ci fanweeri fan ak euh, kenn ko ne bu nga xaajal la mu jaa ak téere yi ngeen jàng ñu tudd tam waaw waaw euh, téere yi bi ñu jëkk jàng moom monsieur Abdoulaye Moulane de la anu tuuti fulkul machon euh, bii nag nga xam ne moom moom laa yor man bu mag bi sëñ Bachir Diofam moom da cee am yu mu ci dindi am yu mu ci dolli am na xasida yu mu dindi am na badrin bi moom moo ko jigéenee dugalaat ci yeneen boo seetee nag téere bi man ak ak fulku bi daanaka ay xasaay yu néew la wuute daanaka gannaaw asmaa olu badrin bi ak euh, euh, ak bidaayatul xidma bi ak assur bi daanaka lu nekk ci fulku bi rek. mi ngi ci boole see daanaka bii daanaka dafa boole ñaar yëpp maanaam xoranitu la euh, fulku la ñaar yëpp la boole moo tax mu baree noonu euh, dog bi yit ñu ngi def ñaar fukki dog ak juróom-ñeent mu ànd ak weer yi bu fekkee atu jëkk ya su fekkee weer yi feeñu dañuy jàngaat mu fàttali bisiri am na fekk naa ñaari yoo xam ni jàng naa euh, yenn xasida waaye gannaaw gi nag suñu mustaani daal a ah, boo fay nañu noppalu rek waaye bu jëkk bi loolu la woon waaye nag at yi moom bu fekkee weer yi feeñ ñaari fukki juróom-ñeent daal ci la yem bu fekkee feeñ na dañuy noppalu rek waaye kenn du ko jàngat dara noonu daal ci gàtt la waaye noonu waaye ñaar ñaar fukk juróom-ñeent yi daal mooy mooy mooy mooy dog bi waaw waaw jàng bi kii jàng bi kii jàng bi kii jàng bi leen jàng ku nekk ak ba muy jàng téer yi waaw dog yi maanaam dañuy xool ay limu bayit waaw waaw waaw dog yi dog yi comme bale barewul noonu moom def naa fukki fukki fukki fukki fukki fukki xët lañ ciy jàng ndax bi da ko ëpp lu bari mooy dañ def nanga ne ñaar fukki xat ak nangam euh, nga xam ne dañu ko def par ñaar fukk ñaar fukk ñaar par ñaar fukk ñaar boo ko euh, ñaar fukki juróom-ñeent yi daanaka moo rek euh, kii waaw bee itam defe naa dama xamul waaye defe naa fukk fukk xëy tak fukk ñaar la moom lañu ciy jàng waaw ndax bii da ko ëpp loolu bare moo tax waaw waaw noonu lañu ko def waaw <laughs> jërëjëf sëñ Mountakha sant nañu baax a baax jotaay bi tey borom dooli taw feex jërëjëf Guèye الله ñi nga xamante ni mooy moom kenn la ci jëwriñu soxna Daba Mbacke mu Serigne Fallou ñi nga xam ne dañuy taxaw ndogu yi fii ci kër gu mag ba su set sëñ Fallou ginnaaw bi ñu leen nuyoo di la ziar dañ bëggoon nga wax ñu yéen ndogu yi ci boppam nan ko nan ko gisee ak nan ngeen ko jàngatee ak nan ngeen koy dundee saa su nekk asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad Rasulullah ñuy dellu di sant Cheikh Ahmadou Khadim baax sama jëwriñ di la ziar ci pak pour tedd bi nga xamne fi lan taxaw di fi liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul mustafa li nu fi indi nak moy sàkku ndigal rek sunu borom nit boole noog jëmm joo xam ni moo nu tek fi ñu nek di fi liggéeyal Serigne Touba ndogu yeet dara wëral lu ko lu Cheikh Ahmadou Khadim ndax mom mom mo wëral bis bi fi ñu nek fi ah bokko ak Serigne Touba di ñaanal Cheikh Mountakha mbake mom Cheikh Mamadou Basir suñu borom guddal fanam te wéral ko fulku bi nak ci ndigalu sëñ Bamba la waaye nag si wutalit Serigne Touba Cheikh Ahmadou Khadim bàyyi ko Cheikh Mamadou Bassir ñu ànd ak njabootu Cheikh Mamadou di ko def di ñaanal suñu borom yàgg koo teewee yàgg koo def di rafetloo ñi nga xam ni dañoo ñëw fii fekk suñu fi ñu ànd ak ñoom liggéeyal Serigne Touba bi si ndogu yi kon nag duñ def loolu sant yàlla julli si yonent bi di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala lépp lu si waaye sàkku yàlla na ko borom penc mi ful ci kàttanu Seydina Muhammad asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Fall kon maa ngi ñëw fee. waaw kon ñu ngi leen di fàttali ñu ngi fii Njaareem ñu gën koo ñu ko xam ko ci Buqatul Mubarakati muy dëkk bi nga xam ni sëriñ bu mag bi fii la ëpp lu mu nekk ci dundam ndax def na fa fukki at ak juróom maanaam nekk fi 1912 ba 1927. muy dëkk boo xamante ni bii dafa am liggéey bu mag boo am solo buñ fiy def at mu jot ci weeru Ramadan tuddee ko njàngum Fulkul Machon Fulkul Machon nag téere la boo xam ne Serigne Touba moo ko bind muy téere bu màgg. boo xamante ni bi mën nañ ni bokk na ci téere yi mu gën a fonk ba tax na bi nga xamante ne bi sëriñ bi làqu na bi ñëw ba 1946 sëriñ Mouhamadou Bachir Mbacke ibnu Cheikh Khadim Moustapha doon def bés bu set ci weeru koor bi ñu fiy jàng ay buntu ci li nga xam ne moo fil ko machoon loolu nag di dox ba tey ñu ngi ci 2015 muy doon liggéey boo xam mi ngi wéy fii ñu toll nag jamono yi ko ñuy wax sëriñ Mountakha Gueye moo koy jàng ak suñuy wax sëriñ Abdoulahi Diakhoumpa ak ku ñuy wax sëriñ euh, Gadiaga ñoom ñi nga xamante ni bii ñoom ñooy euh, jàng fulku bi di ñu baax a baax ñoo xamante ni bii njàng mu wér mu sell dañ koy jàng ci ndigal ki nga xamante ni bii mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha mu Cheikh Mouhamadou Bachir yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér xayil wara sala alayhi bi salaam bi alihi wa sahbi muslibi xayra xaahirin wa وخير وحاب وخير الشاكر ردي والمكر والتهب لي واشكري سري وجهري والتصفي فكري أنت الذي سيرتني في البر والبهر فاجعلني باب البر لي ساخر الذين باستدراج قد فارقوني بلا إخراج منك أروم يا مهيد العودة دنيا وأخرى بردا والخودا أبقيتني فيك مع المصطفى صلي عليه وبي الخلق فهم كفيتني الهدى بأهل بدري مدن لي تنير بدري ربيتني بذل في أحدائي رقيت بالهس ومحو دائم يسرت لي فلا كسوك يا أبدا يا خير محبود بحق عبدا نجيتني وليكن يا ربيا وصليا على إمام الأنبياء وسقت بالله مع المختار بالمده والصلاة سستار أهانني ربي على هدايا بهم وفيهم ساخ لي هدايا نجيته وهو الكريم النافهم ومنه ياتين لهنا المنافهم نبس ما نبسه وبدلا لما يفوق سننهم مبدلا الله أكرم وأحلى وأجل له سكوري وحمدي وهو جل له سكوري وحمدي ولا أقي سواه سرمدا محولا له بقية مكوسي ساكرا بخلمي وباللسان شاكرا هو مرادي لا أريد خيره في السر والجهر وأبقي خيرا منه أروم روضه هدايا ليعبدا وسيده هدايا منه أروم روضه هدايا ليعبدا وسيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو الذي وحن كيدهم معا ورادهم بقاره وخمها نهر لخير مكاره بلا توجه لي وخيرك بلا كفاهم الكافي محا والسهرا جميعهم وأن جنابي أخرام يقودهم صم لي اللهين ولي كان ربي المحين دفعهم قبل بخير مدفعين إن له أبتمها المصفح إلى سواي بالجنود والسلاح توجه مها السقاين والطلاح لخير نهي وجه العداوة قاموا لخير وحووا الشقاوة قبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجحتني بما هداك أيسا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 تتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ماح محا به الكدر ثبوت التوحيد لواحد قهر للعدا من اختفى ومن ظهر للجنة في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أزكى سلامي لي ليبتدر كرمه على مبيد من غدر لمالك وجهت توحيدا ظهر على عدا عاد منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم برد في البر والبحر الذي العدا تبر ناجيته والقلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وسرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر لا يقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقت الباقي شكورا قد صدرت من فيده بنى الخيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهرت من بمعاداتي أسر وجهر لك بقائي أنت باق قد شكرت كليتي وعند حزبه ذكر تاب علي خير غافل سترت مع عيوب من جلا وما استتر يثري هاد بتعليم أمر بفضله مخجل الشمس وقمر وجه لي فيضا طلالتي حسر وكب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبيهدي نفرا بعد نفر دعوته وقبلي قضى الوتر وليس ينحوني بشيء ذو بطر أجابني من سر علم لي بقر وبيغني من له قد افتقر ليطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ثم لكن الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر على السما الذي ضر حضر قلب الأعيان اطمن لي بالضرر قد جاد ليك مع النصوص والطرر وجهت كلي الذي وجهت كلي الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر نجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الإغنى قدر تسيو من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جزاء باق ليخلد النهر الساق لغير جهتي من انتهر رملي في اختفى وما ظهر من جاز لي منه بنور قد ظهر يقود الباقي أزال بالحذر يقود لي باق أزال بالحبر أزال بالحير فضل به أكون دهرا ذا خير من علي بالكتاب إذ الخبر كشفا مكرم يزيدني العبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بيرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مشتر أجر أطلقني ولا ألاقي من حجر حماني الباقي بما صفى وسر وزحزح العدا كغيري وبسر يقود لي أزمان لك خير السمر ومخجل لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبر من بسحاب المنتقى العدا أبر إلى سؤال إكمال كل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لاستخذ الرحمن كل من كل من أمر وكل ذي وزارة هدى خمر إلى سؤال إكمال كل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو الذي السماء والأرض فطر وليقود ما ببالي خطر إلى سواية من قلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر أدى نحيه أذى الذي خطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض قلبي وأرض قلبي مخر لكي يجود للبرايا بفخر كرمي ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي قادما كليتي كفدسر ما حيا ضرا ما بقى له أثر خديت الباقي لي بالصور جادك ما أحسن فضلا الصور أنقد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا لي لقاد من كل نبر رفا كما زجن عداي قد نبر إلى سكوري بمخجل الدرر كما محا قصد جهادي جهاتي غرر آيات ربي كفتني الشرر ولألانت كل صعب كيرر من عليك من كفاني الزمر يبلي سبيلي عذر لمن ليطهر وجهت كلية إلى من افتقر من عليت من كفاني الزمر ابليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي الى من افتقر لو شاءك عطاب للمقر غير محان بالنصر قاهر انكسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكوري وامات من مكر في جيشه وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفترت بعد اجتهاده وعاقه الفتر هول انتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني خديمه وذلك ظهر سيما به انتصرت فالنصر على سفيع قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى علي الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداية لي قهر على النبي ذي المراتب المبر ثلاث من نفى عدوي وقبر قلت ما أعمى كمثلي بصر ولا ألاقي ضر حرب أو خسر باذل سو باق لي زخر ما اختر لي وليس قولي بسخر إلي قاد إلي قاد الله في بحر وبرق جزاؤه وأجر عبده المبر ليطيب البقاء باق قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي مع الصبر وقلمي لخدمة الماحي شمر <coughs> لك ربي وعبده السهر وكلما أذابه الباق سهر يقود ربي الذي كل صبر عن كل ما لم يرض خير خبر ناديته وذا الغوامد فثرت وكل ما كشفه الله انحشر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر سي عمر ليخلد الفجر قلقين قد كفاني من فجر تسي من كرمه ليبتدر على شف قد كفاني من غدر قلت ربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر وجهت توحيدي لواحد قهر العدا من اختفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماحي الكدر لم ينحني إلى دخول الجنة غير صفاء ورضا ومنا كتابتي نفد عدا الإله أجمعين وليس نحيت الزحزح اللعين أمحو اليوم وبعد اليوم داع إلى شقاوة أو لوم لا كافر ولا منافق نحي وأما جهة الموافق أدب ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني ما اتزن جزاء ربي وجزاء وجزاء المشفع قاد إلي قاد إلي مغنيا عن مدفعي فتنحني جوالي ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور الدستور ربت لغيري كل ذي النفور ترسي عن الشقاء والتنصر حفظ الحفيظ واهب التبصر أدب ربي كل من قلاني بقدره وذكره أعلاني بارك البديع في إخدامي خير ورى المثبت الأقدام يسوق من ليس له منازع قلا سواي كل من ينازع مدري الميت منه الأعظم ولسواي دع من تعظم حجبني المانع عمن ظلم علمني العليم ما لم أعلم حجبني المانع عمن ظلم علمني العليم ما لم أعلم وجهت الله به كليتي عقدي وقولي عملي والنية أذرة عداه طرا لسواي وقال إلى عظم ربي في هواي أبقاني الباقي ودعا للسواق نحو يا ربي العدا معا سواء لم ينحني مكر ولا غرور ولا شقاوة ولا غرور لا يتوجه للنحو سرمدا ما لأجر قدرا أو كمدا هرب إبليس ومن والاه دعه إلى سواي الله قل من لكني أعظم دون غيري من قادني له بأذن خيري أجابني الله الكريم الأكرم ولستنحو جهة رم يغني القهار قلب من أبى طاعة من خلق أما وأبا يغني القهار قلب من أبى طاعة من خلق أما وأبا سكت ربي على كون الحياة طيبة إلى الجنان بالمياه غضب ربي تعالى متعبي ولا ألاقي مورسات التعب يا تربي غدت لي جنة إلى الجنان الحساب جنة والله على ما نقول وكيل ولا اللعين والمكاره معا لغير النحوي لي سؤل جمعان يثبت عندي الكتاب والحلال لم ينحني ذو غضب أو ذو ضلال ثبت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا جاهدت من لم يسلما بر عن الباقي من الشقاء وجادلي بالرفع ذا ارتقاء برئت من كفر ومن فسق ومن شك وربي بفلاحي لضمن توفيقه قاد له كليتي عقدي وقولي عملي ونيتي وجه أشخاص عدايك والضرر إلى سواي من حماني عن شرر عبدته عند عداه مد يفيده الذي إلي مد نفعني في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي لا استجاب وهو الأكرم ومنه الإنقاذ الرضا والكرم هداني الله هداية الكرام وكان لي وقاد لي خير مرام إلى إله الله أوصلت لدى ومن كفروا ما لي فلاحا خلدا مددت المختار عند المشركين خدمة السر صدق أعجلتهم مهلكين مدري الله تعالى بالنبيين ما لا يراه أقرب وأجنبين إلي قاد الله ما فاق الظنون من المنى بلا اشتكاء أو أنين لمنحهم أزمان خدمتي غفول عند ذوي والعدا ذوي أفول كتابتي مشكورة عند الشكور وعندها وعنده جعلها أعلى شكور ترسي عن الكذب والخيانة بقاء من لي كان بالصيانة إن كتابتي صان الدين من له البرايا والفعال والزمن باء العين بالمكاره معا إلى سوى يقلي مرادي جمعان باء العين بالمكاره معا إلى سوى يقلي مرادي جمعان لك توسلت بخير مرسلي يا خير مالك وخير مرسل تبت من التسويف والتكسل وتب علي وعيوبي غسل خلد, سعادتي وكل جملي قد الجنان هي أوصل أملي رضيت عنك وعن المزمل وجبه كل خير عملي جلي بخير ثمن وبدلك ولتغني عن المراء والجدل إلي أوصل إلي أوصل مهجلا للعسل حلاوة بلا أذى أو كسل إلي أوصل مخجلا للعسل حلاوة بلا أذى أو كسل وجد بكوني سرور الكمل يا من به كني أذى لم يمل نبي بزحمة النبي كالكليك هذا بلساني ليهب كون كريم هذا بلا أذن لغير قبلي مرة ما يسوءني والتقبلي سلم عيالي وتصفي منزلي طوقني وليصف النزيم مريحي ربي أنت زلزلي واسكن تلاوتي خير من منزل نبيه بخطي كل ذي تعقل وصل غيري هداية واقل ابن ابن بخطي خير علم وكبل كل حسود كل أذاي مقبل لك انصرفت بكذا توكل عليك الطيب مشربي غير الرمحان بك بلا تأجل وبك يا باقي محوت أجلي لك سكوري بخطي بغير وجل إلى الجنان وبغير خجل مع تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرجي وعللي إذا لي العادات كالتنفريك وبيبشر مع رضاك محفلي تبت كي يا ربي من تقولك فتب علي يا منيل الخوري إذ يقد ما شئت بالتسهل كل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل من غير قطعا فكل فضل يا علما جاد بالتنبل هب صلاح الحال والمستقبل عجتني سليك وما لم أسأل يا خير نافع وخير موئل لك التجائي شاكرا فلتزلك توجه الأذى لنحوي يزلي ناجتك لما فبشري عدلي بلا نهاية ولا تأجلي ودود هب الود دون ملل واهد بخطر الناس خير الملل رب طيب بجاه خير مرسل أي تسليمات خير مرسل لئن شكرتم لأزيدنكم لرب كريم واسع خير معبود شكور لدى داري في البحر والبيد إلهي حكيم نافع ذو تفضل غني ومغن جوده جود تأييدي نفى عني الأعداء طرا وساق لي مرامي بلا كد وضيق وتشديد نفى عني الأعداء طرا وساق لي مرامي بلا كد وضيق وتشديد شكوري له بالقلب والجسم سرمدا والإجاد بالتوفيق فضلا وتسديد كفاني في الدارين كون الإله لي بلطف وجود فيضه غير محدود أكون يعني فاتلي يعني يعني سيتان سان راديو تلفزيون المورديا تي في كون تاي فوكي فان اك جوروم تيوار رمضان سي اتوم جوني اك نينتي مرا فان جوروم بن نيغي في سي نجارم ci fi nga xamni fi fii la ñuy kon fi ñi ngi taxaw ak ñi nga xamanteni bi ñoo jité daayira fulkul bi ñi nga xam ñoy taxaw liggéey bi ci fànn yépp ba wax dëgg yaalé fulku bi di aw yoon lepp lu wara am am fi lepp lu wara euh nek lo xam da fay wara taxaw taxaw fi lepp tam ñu doxalee ko ci doxalin bu rafet doxalin bu baax ba fu way tol ci aduna di gis ni fulku njaareem fulku xeewal dëgg la kon ñi ngi taxaw nga xam moko jité muy sëriñ mustapha mbay sëriñ mustapha ginnaaw bu ñu leen ba pare laaj bi leen njëkk laaj mo ngeen xamone ñu manam waccay bi ngeen def pour fulku bi euh, nan lay amé ak diiru ab ni ko liggéey ba sa su nek na liggéey bu ñu gisé rafet. jërëjëf señ bi bismillahirrahmanirrahim ñi rahim ngi sant yalla bu baaxa baaxa baax di sant señ Touba mi nga xamanteni gannaaw yalla lepp li lu fi xew rek mo tax di sant itam ki nga xamanteni mo moo liggéey bi di Cheikh Mamadou muntaha tek lepp ci loxo Cheikh Mamadou Fadal ñu sekkon ko. jëlee ko Cheikh Mamadou Bachir mu seexoo koon kook suñuy waajur ñu judd fekk leen ci yàlla kàttanal ñu may ñu ba ñu euh, yenu liggéey bi yore ko fi ñu nekk ni jëlee ko ci seeni loxo kon dañuy jëkk ñaan kilifa yooyu fi nekk sunu borom yàggal leen fi ba yéene yi nga xam ne moom la am ak seen taxawaay yi nga xam ne moom lañu ñu nas a def ci dëkk bi nas koo def ci réew mi nas koo def ci yoon wi te liggéeyu fukki bi doon ci liggéey bu rëy a rëy rëy suñu borom bàyyi leen fi yàggal leen fi kattanal leen ba liñ ci bëgg a def lépp ñu def ko ci. li nga laaj nag e, xëy na e, mën naa ne waajtaayu liggéeyu fulku e, nekkul organisation formel boo xam ne mën nga ni dañ koy structure teg ko ci ay fondation yoo xam dafa mel ni ndimbalu suñu borom rek la ñuy doxee. dañu toog jamono Cheikh Moustapha moom seen Basiru xalaat ni. Eh, mag ñi fi nekk war nañu gannaaw fulk bi cërub njaareem la ñu fexe nañu taxawee ba eh, kenn bañ leen ci ëpple taxawaay ci fànn wu ne fànn yëpp ndaxte fulku gan la rek boo xam ne day gane si ni weeru koor wi di ganesee ñu war ni nuy teeroo weeru koor di ko tere la koor gi di ko tere ñu teeroo ko fulk bi tere la ko noone ci taxawaay ci yitte ci ci lépp ci ci alal ci ñaq ak ci ci ci yitte ak surtout yitte nag moo taxoon sëriñ bi gis ni war nañu lu ñu mën ñu def ko ci ñun ñi nga xamni ne ñoo fi dëkk gëna a gëna gën yey ñu ñu lu ci suñu war tef lepp ñu di ci def motax bu jup sé rek at danañ ko tok wo xam amna ci biir daayira fulku bi mom ci bopam ño xam dañuy wër di di di laaj ay addiya ci nit ñi waye nekkul euh, amul cotisation formelle bo xam dañ ne nangam la nit ki di tek pour bok ci waye lepp lu nit mëna am def ko ci rek lolé dañ koy denc di dajalé ci serigne mo soxna lo mi nga xam moy trésorier bi khadim Guèye mi nga xamanteni moy mom moo moom Baye Modou Lamine Guèye moo ki nga xamne moko jekkon na nek initiateur bi moy délégué de quartier nekkon fi délégué de quartier yalla na yalla yokk leeram ñoñu ñoko doon saytu biñu fi joggé yit man ak khadim ak ñoo ñi nga xam ñoko ko Khalifa sar ñom ñoy and di def liggéey bobu diko ko dajale xamanteni dem nañ nak bañu suba wër yu feeñ na suba lañuy ki lañuy la ñu dajalé won lañ koy jébal sëñ bi su ko défé mu doon wajta yu liggéey bi wéyal nag loola ba weer wi wépp luñ ci am ñu da ko dajale di ko ko jox mu amaat nag beneen entité beneen kuréel goo xam ni moom jotewul ak loola dara jotewul ak daayira boobee di liggéey loola dara muy organisation interne liggéeyu fulku bi loola moom ci suñu waajur lañ ko fekkoon mu def ko alaaji Cheikh Mbay yal na yàlla yokk leeram ñu ñëw suñu borom dogal mu jóge fi sëñ Muntaxa tegaat ko ci sama loxo maak samay rek ak njaboot gi ak ñii fi ne ñu bokk di liggéey loolu muy mbirum organisation journalière fulk bi loolu beneen entité la boo xamante ne moom itam ay nit ñu takku ñooy ñëw rek ñu ànd di fexe nu ñuy defee ba ñëpp ñi fiy ñëw ñu toog toogaay bi jekk ànd ak yar ànd ak teewlu ba li nga xamante ni moom la ci sëñ bi bëgg ñu def ko ci. waaw ñu gis ni ci organisation bi seetlu nañ ci sonorisation seetlu nañ ci lu mel ni euh, sécurité bi. seet nañ ci moom organisation bu baax seet nañ ci hygiène ndax saa su ne day fekk bërëb bi set wicc seet nañ ci tam wax dëgg yàlla ci wàllu communication internet beeg lépp am fi foo mën ngeen jox leen na ko doxalee noonu ba organisation bi tegee noonu ci yoon. loolu moom mooy mooy ñun ñii euh, euh, Matar Fall bii gannaaw bu yàlla dogalee sëñ bi jox jox ñu liggéey bi euh, mu doon nit ku sell. sunu borom def ma daal di koy fab moom it jox dénk ko caabi liggéeyu mbaar bi. Mom, du nek ba wéru koor wi jot muy dor di fay top top barab bi mok ñim ko andal waxtu wu ne àjjuma ju ne ak bis bu ne mu diko di ko diko di ko di ko ba waxtu wu nek bo fi ñewé di nga fi fekk li nga fi wara fekk mu mel wara mel Baye musa sek mi itam yàggoon fi ba fulk bi nekké gamat nek mbar rajo yi ñu ko doon defé rajo daayira bi la woon mu yor ko di ko def ba tay ji mu gëna yok ba yegg fi mu yegg ay rajo yokkaat ci ay sonorisation yenen yok ci loolu lepp momit mu di ko képp ku ñëw indi sa matériel wala nga ñëw bëgg feeñal sa yéene ci liggéey bi mu jàppale la ba def lépp benn réseau di ko di ko diffuser ma nit ñi di ko déggee qualité bi ñu am ñu di ko ci am. lépp lu jëm ci internet beeg euh, télévision yi nga xamante ni pratiquement fi mu ne ak rajo yi ñu ngi ñëw di ko di ko couvrir ñun ñooy dem wàcce suñu suñu ñooy ñooy fay wut liiñ wala ñu fay ay connexion pour que euh, nit ñi mën a diffuser. Euh, événement bi ni ñu ko ni ñu ko bëggee loolu lépp ci suñu niveau la waaye lépp dañoo ànd rek di avec une bonne cor parfaite coordination mais teewul ñi ngi ñaan ñëpp ñi nga xamante ne aussi am nañ ci xalaat mhm. wala am nañ ci ci ci yéene ñu jege suñu rek ñu gën a xool nu ñu gën a yokke parce que mbirum sëñ Tuubaa moom day gën yokk rek mhm. ku mel ni yow mii mas naa la wax ne la soxla nañ ci sa sa sa taxawaay ak keneen ak keneen ak keneen parce que dañu xalaat ni war naa dem ba egg ci niveau boo xamante ne xëy na suñu xel sax mënagu cee yegg mhm. ndax lii ku ko gis ni muy doxee dinga xam ni alors bis dina ñëw mu yegg foo xamante ne dina kawee suñu jort te loolu la ñu ñaan ñi ngi ñaan yàlla fekkal ñu kon képp koo xam ni am nga ci xalaat wala nga am ci gis-gis wala nga am ci man man ñu ngi lay tàllal suñu loxo pour ñu ànd liggéeyal Serigne Touba ci fulku bi. laaj bi mujj mooy tey boo benn kàddu boo bëggoon àdduna bépp dégg ko ci fulku bi maanaam ban kàddu lay doon. waaw mooy eh, eh, damaa jàpp ni eh, mbirum sëñ Touba la mu Serigne tubaa defal taalibe yi te xëy na ni ni ko nit ñi war a xame xame wuñ ko ni ndaxte bu fekkente ni fulku ak li mu tekki ak li mu doon. serigne touba liguel ko bopam doomi serigne touba ak njabot serigne touba don ko taxawal sen bop muy ñaar fa de juróom ñent yo xamni ne muy taw muy naaj muy tang muy sedd yitte juñ mëna am danañ ko baax diggante takusan ba timis danaka di teewlu teewlu ak niñ koy teewloo yaaka na ni événement bi ci monde murit ben la ci sénégal ben la ci monde kon japp na ni ñi dëkk jaarëm surtout ak ñi dëkk ci kër gu mag particulièrement war nañu gëna am yitte ak taxawaay ak jàppale sëriñ bi ci ci ci ci liggéey bi ndaxte liggéey bu diis la mbooloo fii ñëw moo xamante ne gis ñëpp ciy teg seen bët nii Baye Fall yi di def bis bu ne ñu toggee Mbàkke ndogu yanu ko indi ko fii pendant vingt neuf jours loolee ñun war naa doon euh, euh, soñ ci ñun ba xam ne tamit Ah, ah, mbolo mi ñew fi ku fi ñew serigne bi nga fi ñewal te serigne bi bu ñewé lepp ci kawam lay nek lepp ci ci ci ci ci ci lay nek ak ci yitem ak ci man-manam kon nit ñi luñu man ci gën taxaw ngir jàppale fulku bi rek war nañ ko mëna def ngir liggéel ci serigne Touba yéen ngi sant ñep di gërëm ñëpp jërëjëf Diop monsieur Moustapha ak am mbolo ñeen sant bu baax di tax rafetlu liggéey bi yalla serigne Touba defal tawfeex beka la uh, ngi taxaw ak sëñ Ousmane Kane muy jëriñ daara Hizbut Tarqiyyah bu Njaareem kon sëñ Ousmane ginnaaw bi ñu leen nuyoo laaj bi ñu leen laaj laaj bu gàtt rek la muy euh, ngeen leerañu nu ngeen dundee lii nga xam ne mooy ndogu Touba bi nu ngeen ko jàngatee ak maanaam yan seetlu ngeen ci def ak maanaam euh, daal nu ngeen ko gisee ci gàtt ci tënk. waaw auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. salaatu wa salaam ala ashrafil mursaliin bon sëñ Momar euh, ci turu daara Hizbut Tarqiyyah yëpp bu Njaareem ñu ngi leen di nuyu. waaye it di nuyu sunu mbokki télévision Almouridiyyah bi nga xam ne benn la si ñun euh, ji gëndul euh, boo demee tey pencum Touba penc yi penc moo ci dem kenn ku nekk yaa ngi def yu saarixuuna fi la xayraat di sakku yiw ci li sunu borom diggee ci jox nit ku or mu doge nga ci sakku yiw di ci sakku barke ñun. ci loolu rek lañu dugg ndokk ba nga xamee ni euh, li suñu liggéey sëñ Tuubaa ñu sax di ko def waaye it fépp foo xam ni yaakaar nañ fa sakku fa ngërëmal sëñ Tuubaa rek ñu ko fay sakku di ñaan ci lii tamit euh, sunu borom euh, gàttanduñu ci yërmandeem gàttanduñu ci ngërëmam di rafetlu lool nag acte bi ndax tey buñ ko xoolee tey ci sunu mbokki Baay Faal yi ñoom nga xam ne mën nañ leen tudde sunu jëwriñ yi ci lii gis ngeen seen jëf. bon ñun bu ñu fekkee ne dugg nañ ci biir lii booleeg lañ daan def naka jekk du firi dara dul la taxawaay ba nga xam ne ca lañ taxawoon naka jekk waxtu bu nekk di sakku mbégte sëñ Tuubaa di sakku ngërëmal sëñ Tuubaa ci ndongo yi lii loolu rek laa ko mën a gisee. te defe naa ni tamit public bi nga xam ne ñoom ñoo ko jariñoo du ñu soree ak man ay kaddu bon mu doon ay kaddu sant waaye doon ay kaddu tamit ñaan suñu borom li nga xam ni moom la képp kuy sakku lu baax di séntu. ci ngërëmal suñu borom ak ndimbalu suñu borom suñu borom gàttal ñu ak loolu sëñ Mor ñu bëgg ngeen leeral ñu rek maanaam nu ngeen gisee ndogu Touba bi ka xam tey fii njaar lañ ko defee nu ngeen ko jàngatee ak lan ngeen am ay kàddu yu gàtt ngeen ci mën a wax <coughs> bismillah barke borom Touba nun de nii nu ko gisee <coughs> ñëpp a ko gisee noonu nii njaareem nag lii rek la baaxoo maanaam ku ne xam na njaareem moom waxtu koor nii rek lay mel bo fi gonté ñew da nga gis ni njang mi tubaarkàlla mbolam mi bi ñepp dañ fi dajé di ñi di deglu xassida ñi di jang xassida ñi di bernde ñi di tay ji nak euh ni ko euh, wa almurid defee ku ko na ne ni defin wu sel la jaar aw yoon doxalen ko doxalin wo xam wax deug yalla Euh, rafet na euh, ñu fi ñu fi ñëw xéwloo fii rafetlu nañ ko lool ñëpp bëgg nañ kenn ku si nekk tubaarkàlla bi mu fiy jógee sant na loolu rek lañ ko bëggee woon kon nag loolu dañ si sant yàlla bu baax a baax. kon soxna mi ñu leen di nuyu baax leen sant si jotaay bi leen laaj benn laaj bu gàtt rek maanaam ngeen xamañu nu ngeen jàngatee jotaay bi nga xam ne mooy ndogu Touba te ñu amale fi ci njaareem nu ngeen ko gisee ak nu ngeen ko dundee ak maanaam lan ngeen ci am lu ngeen ciy wax. bisimilah rahmaani rahim barke Cheikhul Khadim sëñ Momar ndogal yi ni ñu ko gisee mooy jàmm rek lañ si gis wax dëgg yàlla ndax Hizbut Tarqiyyah ku ko xam xam ne ne joxe togg joxe loolu mooy li point fort am li gën a kii si liggéeyam foo ko fekk mu ngi togg di joxe niñ ko daan defee màggal rek ñu defaat ko ci weeru koor ñëw ba njaareem tamit ndax. ku ne weeru koor ne njaareem ndax bërëbu ful ku beex yooyu biñ fi ñëwee tamit ndoguli wax dëgg yàlla niñ ko joxee toir fakall macha allah mëte na nit ñëpp lekk nañ ba suur sant ñu ngi si sant bu baax di ñaanal Almouridiyyah yi fu mu bëgg yegg mu yegg si barke Cheikhul Khadim di sant suñu jëwrin bu baax a baax euh, moom sëñ Atou Diagne si initiative yi muy def yàlla na yàlla yokk te liggéey bi yàlla na gën a dem kanam nous sommes en présence d'un des membres de la cellule de Diourbel du nord de Serigne Seigneur après vous avoir salué, nous voulons juste que vous nous donnez votre sentiment par rapport à Ondogo qu'on vient justement de faire. Euh, Alhamdulillah, moi je dirais que c'était une première fois dans l'histoire de, Durbel que Isbutar Kia vient magnifier son logo avec cette population. Donc ce qui a fait que vraiment tout le monde était là, il y avait une forte présence, tout le monde était content. Donc c'est aussi un autre, c'est un moment de socialisation et de familiarisation. Parce que le fait de donner à manger à quelqu'un, surtout pendant ce ramadan, à cette heure de, la coupure, vraiment ça fait plaisir. Donc aussi ça permet aussi aux autres même d'en prendre des exemples pour au moins euh, multiplier ces actes dans, les autres quartiers. Euh, je dirais que vraiment tout le monde est content. Et en tant que membre aussi, vraiment, je, me réjouis de, cette, la présence de Hizb ici au niveau de Durbel, pour cet acte. aussi vraiment vous voyez, il y avait un fort, un grand public, des vieux, des femmes, des jeunes, partout, tout le monde était venu, personne ne restait. Et même on avait fait l'annonce au niveau de la mosquée et ça a fait que vraiment tout le monde était présent. Voilà en quelques mots ce que je peux dire vraiment de ce nouveau d'aujourd'hui. Et nous souhaitons vraiment une bonne fin de Ramadan à tout le monde et à toute la communauté mourite. Merci beaucoup. M. Sen. On a dit loolu muy cër boo xam ne Seexul Xadim moo ko leen ko féetale kon daanaka duñ ko weer dañuy wax rek dañu waxoon ci màggal dañoo xam ne màggal gi nag moo ko daa def li mu ci diglee da mooy ñu jaamu yàlla ci sunna sun ndigal laa ngi sëriñ bi nag moom ci boppam daana toggi ñamam tàngal kafeem di bégal mbooloom yoon waa ngi sëñ Bamba moom ci boppam daana toggi ñamam tàngal kafeem di bégal mbooloom yoon waa ngi sëriñ bi dële na ne ko gis mu man ci bisam bis ba ñuy jaaxle dañ koy ñee texeem gaa ngi nee na ñaari nit bu ñu dendee kii di fonk bisam bii dana raw kee fonkul raas bu gaaw baa ngi te nee na loo am ci duniya ji ci xeeti payin ëllëg dalay raw bu leen koy ñeeblu muur maa ngi sëñ Bamba xam na ba xàmmee ajjana ak yëfam loo bëgg gis saw na xar dem wóor gu gaa ngi teewul mu wax ne bu waxtu màggalam gi di ñëw danan ko yàkkaw li séentu noos gaa ngi nii bis di mel nit ñëpp ñëpp di bég bisam bisaa bu dikkee mooy raw lu wér laa ngi sëriñ bi woon na la wuy sil yàlla moo ko defal moo am lu dul jeex te biir wuy si raw gaa ngi sëriñ bi woon na la wuy sil yàlla moo ko defal moo am lu dul jeex te biir wuy si raw gaa ngi sëñ Babacar Jaxate tam am na nu waxoon ndoortel jumaa lu yemo yemo wax jangi jumaji. ne li def am ci juma ji jarna khair na jax sababu toj ngir liggeyal Bamba war gaa juma ji nak léegi magal yegge ndigal li fi des magal gi rek fi ses magal gu magangi ndigal li nak léegi bi yegge ndigal li fi des magal gi rek fi ses magal gu magangi seigne Mamar lu ngeen def rek magal la ndax Serigne salim mbake yalla ko yalla fayal da waxone yeen lu ngeen def rek magal la. kon looloo tax ma dikk ci màggal waaye si mbay jax daa waxoon ne koor gi ñëw na te noo ngi teewe kooti biir te am na na gaa yu teewul sant daa la nu war kon ñun ñëpp yàlla ñu am koor te yéen geen am waaye nu bég nu bég suñu bég yàllaat mbégam maa ngi jërëjëf Seex al Xaadim I ran